waaw jërë ngeen jëf mbokk yi topp ci biir réew mi ak bitim réew ñi ngi ñaan Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké yàlla na fi doole yàggaat loolu ànd ak wér waaye di ko ñaanal bu baax Euh, sëriñ Amdi Moodu Mbenda xalifa général de Baye Fall di ko ñaanal sëriñ Mouhamadou Fadilu mi nga xamante ni euh, mooy xalifa sëriñ Abdou Sakkour Fall waaye di ko ñaanal euh, suuru Mame Ben Ndiaye muy Cheikh Moustapha Fall ibnu sëriñ Abdou Sakkour ndax sëriñ Abdou Sakkour moo ne woon Moustapha laay caatloo dina gudd fan dina fi yàgg te dina liggéey yàlla nañ ko ànd ak moom jëf ji mu jëfal magam ju baax ji mooy Cheikh Mouhamadou Fadilu ñu ngi feggoog jëwrin Aliou Ngouti Mbaye Cheikh Moustapha dégg nga kaddu yii mu wax ci jëf ji nga xamante ni jëfal ko maam Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridine ndeysaan sëñ xaadim sëñ ngaari ñu ngi lay ziar waaye bala ñoo sori rek ñu musul ki seytaane wax auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa di sant yàlla bu baax tey wax asalaamualeykum mboolem jullit buy teewlu suñu kaddu yi di sant bu baax di ziar sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général kullu murit yàlla na fi yàgg te wér noonu la ñuy ziare ju mag ja muritam bu mag ba sëñ Amdi Modou Mbène yàlla na ko fi yàlla yàggal wéral ko ba mu eggale bépp naal bu mu amala maamam Sidi Ibrahima Fall ah Xaadim Sey taxawaay bi ñëpp xam nañ ko xew-xew bi ñëpp xam nañ ko lenn rek moo xew dara xew lu dul jébal addiya te ki jébal addiya daana ko jébal du lu bees sëriñ di Moustapha Fall moom sëriñ Abdou Sakkoor di jébal ay addiya yu daan jébal magam sëriñ Fallou Fall moom sëriñ Abdou Sakkoor loolu jaadu na ñu sant yàlla nag ban ko fekkee ñu sant yàlla ba ñu yàlla suñu boroom boolee ci liggéey bi ndaxte umpale woo ni ndeysaan keroog bi am di doon tàggatoo ak waa Sénégal fii le 15 janvier ñoo ko ànd man ak yow ca Mbour ñoo defandoo plateau ba Touba TV macha allah ñu egg ca bis ba keroog le 10 février non du woon le 10 février de le le 15 janvier ndeysaan waa Sénégal dajale fa addee ju takku suma ma juumul ci 10 millions di som boo xamante ni si nii macha allah macha allah macha allah ci dolli rek addee yi sori. waaye ñu jóge fa toor fa kalakaar macha allah jàll dem seeti diaspora bi nga xamante si ay wëlërëy Serigne Moustapha Fall la man la ko àndal ñu dem dikkat ci jàmm ñu ci sant yàlla bu baax a baax a baax ba tax na foofu nag rek laay daal di taxaw di jottali cantuk Serigne bi ci waa Sénégal ak waa diaspora ak bépp jullit boo xamante si tabbal nga sa dërëm ci liggéey bi sall bi nga xamante ni si ni lu dul loolu ñuru ko muy liggéeyal maamam waaye liggéeyal baayam ba Serigne sa Sakor Fall waaye nag toor fa kalakaar macha allah jébbal ay addiye magam Serigne Fallou nag yi ñu ngi leen di yeewi ñuy dem ñoom Pape Baye Fall Pape Baye Fall nga nele ñoom daaw dañu ngi nele di tekki nag yi di yóbbu benn benn ko sëñ Fallu nga xam si ne xaaruñu lu dul ñu yóbbu ndogu yi wàññi ko ñëw ñu ànd ak ñoom ndànk dem jébale ji addiye ji jébal nag yooyu noonu ñu yóbbu boole ceeg ay millions ñu takku nan ko daan defe saa su nekk boole coog joxe almet ni ko xosal taal lu la neex defal ñun nga liggéeyal yoon wi rek waa kër sëñ Abdou Sakkour Fall bañ a yooy ci yoonu murit taxawaa ba suñu bàyyi sëñ Abdou Sakkour Fall amoon macha gën ak njolloor gi ay gaynde la fi bàyyi waaye nag bàyyam day gaynde rëbbkat ba rëbbi na dikk na waaye indi lañu ndawal ñun ñëpp ñu ngi mos nan ko sant nan ko gërëm gannaaw bu ñu ko santalee magam yi sëriñ Fallou sëñ Mourtala sëñ Mourtala sëriñ Badafal toor fakal lakaar macha allah ak bépp njabootu sëñ bu Sakor Fall gu jigéen gu mu fi bàyyi magam yi ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax a baax ndaxte nag peccum nii bu neexee nday jaatee ca mbag ya ay magam ñoo ko jàppale ay magam a ko jàppale de gannaaw nag moo seexal ay magam waaye daa fekk ay magam jàppale ko ba mu mën leen a seexal baam ni daal li ñu mën a wax daal mooy jàmbaari Sharafal la joo xamante ni si nii jar naa ñaanal kon ñu ngi sàkku ci mboole mu jullit mu ñaanal ko mu gudd fan te wér ba eggale liggéey bi ba mu egg nam ko bëgg a yeggalee toor fa kàlla kaar macha allah waa Europe nag kenn demul ñu des waa Sénégal kenn demul ñu des sëñ baa ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp ci tax yu rafet yi nga xamante si am nañ ko ci képp ku ci tàbbal sa ab dërëm tey jii ni bu déwénee yàlla nga am lu ko ëpp yàlla nga am lu sut sa njort ci barke maam Cheikh sant mbooloo mu julli mu ñu doon teewlu tey kontaane bu baax chaîne bi nga xamante ni si ni 24 actu may actualité n'est-ce pas ñu leen sant di leen gërëm di leen ñaanal seen chaîne bi fi ngeen bëgg mu yegg fa yàlla na ko fa yàgg yàlla yegle ci barke maam Cheikh Ibra Fall jërëjëf Euh, jërëjëf euh, Aly Ngouille Mbaye kaddu yi am na solo loolu sëñ Cheikh Faye ñu ngi lay siyaare bu baax moom moom miy jógee ba Fissel euh, Mbadane ñëw ci jëf ji bàyyam di faal doom yi soxna Mbène Ndiaye waaye yàlla na gudd fan terew ci njëriñ Ndiaye war ko jébbal Serigne Serigne Fallou mi nga xamante ne mooy xalifa Serigne Abdou Sakko. aouzu billahi min sheytan rajim wa inni aouzu bika wa shuriyata min sheytani rajim rabbi aouzu bika min hamasaati shayatin wa jaaraama maam Cheikh Rafal ah jëwrin jërëjëfati ndax euh, bés bi dafa rëy ci ñun lool ndax li tax mu rëy ci ñun mooy li liggéey sëñ Moustapha Fall bii képp kuñ ci woo dañ laa bëgg a dimbali ndax kaay leen jëriñu kuñ ci woo war ngaa war ngaa daw ak xël ndax ñun de waa Fissel ak waa Mbour ak waa Joal sant nañ yàlla bu baax gannaaw bu nu suñu borom booleeg sëñ Moustapha ay ndaw lañ toll ci àdduna waaye ban xamanteeg moom ba léegi mu ngi ñuy dimbali di ñu teete di ñu jëriñ di nemmeeku. kon bu ñëwee ànd ak moom ci liggéey bi noo ngi sant yàlla bu baax te di ñaan suñ Modou Moussa Fall yan su borom guddal fanam te wéral cëram ba lépp lu mu li yéene ci liggéeyu maam Cheikh Fall bi mu àggale ko sama kàddu du ci gudd ndax yéen yéenay suñu jëwrin bu ñu leen fekkee bu ngeen waxee rek mottali na jërëjëfati jëwri jërëjëf ah, euh, Serigne Cheikh Faye euh, jógee Fissel Mbadane ànd ak délégation bu am solo nag yaa ngi muy jëf ju rëy ji muy nag ay xabon yu mag lay jébbal magam ju baax ji at mu ne muy Cheikh Mahamadoul Fadal euh, mi nga xamante ni mooy xalifab Serigne Abdou Sakkour waaye sëñ Abdou Sakkour moo ne woon Moustapha Laye Thiatlo eh, dina gudd fan eh, dina fi yàgg te dina liggéey yàlla nañ ko ànd ak moom liggéey bi muy liggéeyal maam eh, ci biir réew mi ak bitim réew di gërëm Aliou Ngoutou mi nga xamante ni moog sëriñ bi ñoo àndoon def tournée internationale ni ko sëriñ bi waxaatee war a defaat tournée fii ci Afrique ak mboolem ko xi fasandu yaa ngi bàyyi sa yitte dëkk Louga waaye ji di ndajeeru sëriñ bi bàyyi sa activité yëpp lu mat juróomi weer a ngi nii ca Touba Linguère lañ tàmbalee ba ci Mbour fu sëriñ bi teg tànkam moom teg na fa tànkam kon ñi ngi ñaan yàlla sunu borom yokk say xéewal ci jàmbaar yi nga àndal muy Cheikh Moustapha amiin amiin amiin jërëjëf ci ñaan yi waaye nag ñun loolu moonu war ndaxte gis nga àdduna amul solo te dara desu fi lu dul liggéeyal ku baax te ku baax ku mel ne seex Moustapha dafa naqare gis ci jamono ju ñu ne booy wër ku baax ba gis seex Moustapha Fall jàppal te xam ni dootoo gis ku ko gën ku bëgg lu baax ku koy xeeñtu ku ciy dox saa su xëyee. ba ngoon jot mu dem tëddi lu mu am jël ko jox ko te ku mu jox war na laa jox te ña war a jox rek lay jox dama fàtte sax jëlee la mbiri joxe ak ak nangule waaye ku déglu tey jii nii li nga xam si mooy kàddu yi mu fi yëkkati di kàddu yu digle mooy nañu téye suñuy loxo na kenn ku nekk taxawu moroomam bu kenn bëgg alali kenn nañu góorlu nañu jàppalante. nan fi bàyyi alali jàmbur nañu bàyyi mooy yàlla nañu moytu mooy yàlla nañu sax te jéggulu te buñ lu ñu jéggulu lu nekk lu ñu tuub buñ ca dellu loolu waxi wax waxi waxi jullit rek la waxi lislaam la waxi ku baax la waxi kuy digle lu baax la Cheikh Moustapha dañuy ñaan yàlla sunu borom yàggal ko fi wéral ko ndax mooy sunu njariñ jërëjëf sëñ Xaadim. jërëjëf eh, Cheikh Moustapha eh, Seydina Alioune moo seexal ay magam. dëgg la Cheikh Moustapha moo seexal ay magam. Cheikh Moustapha moo noppal ay magam Cheikh Moustapha moo féexal ay magam Cheikh Moustapha day pees bu raar ci yoonu murit waaye Cheikh Moustapha day pees bu raar ci yoonu Baye Fall Cheikh Moustapha ni amul ci Mbàkke amul ci Mbusoobe amul ci Paaleen mooy Moustapha man tànnee fa njare di ko bellihaat di ko bellihaat ba ci soxna Mbeen Njaay mu tedd mii ndax demoon naa cuurul wax naa ko sànq toori baay buri Njaay waaye nag bëri lool waaye sàmba mën a ràññee waaye ku sa yaay togg reer barkeb Kaaba jooju doom du liggéey bépp soxna Mbène Ndiaye mu tedd mii la Cheikh Moustapha ku Cheikh Rafal ameel bor boo gisee moom mu fay la ndax ni ni mu demee ak Cheikh Rafal day mbokkum Cheikh Rafal ñaari yoon da nga naan maam Yacine Mbaye Ndiaye mu bokk ak maam Seyni bu Ndiaye soxna Yacine Mbaye Ndiaye soxna Ndiaye Ndiaye soxna Roqee Ndiaye soxna Ngaye Ndiaye soxna Ngaye Ndiaye moo mel ni maam Mbène Ndiaye maam Mbène Ndiaye lañ dénk sëñ Abdou Sakkoor ci suñu nopp mu am ci benn bu barkeel muy Cheikh Moustapha mu sëñ Abdou Sakkoor baa xam nga ni Cheikh Abdou Sakkoor bëri woon na barki maam Cheikh Rafal Cheikh Bamba am na Moustapha Cheikh Ibra am na Moustapha diggante Marot ak Safa kuy aji war nga faa jaare wala doo maj waaye sëñ Abdou Sakkoor am na moom Mouhamadou Moustapha Cheikh Moustapha bu dee ree ma ngay joxe bu dee muuñ ñëwal jege bu ngeen toogee te kenn laajul mu bel ndeen nu fa Touba Linguère ke gën nday ke gën nday ke gën bàyyi gën rakk ak doom bi laay Moustapha Doomaas sóoru maam benn Njaay gileemu tukkal la ñu reyal Touba Linguère berndeel berndeel ñ ko ñu dem Touba Linguère jóge fa ñëw Cheikh Moustapha jikkoom mel na ne ñëw Louga sa kër. le 15 décembre faral magal gu rëy. ndeysaan le 15 janvier. ndeysaan magal magal gu rëy. croisement Saly ñu jógee Saly nag toor fa kalakaar macha allah le 17 la ñu départ wàcc Paris la France jóge Paris la France dem Italie magal magal gu rëy kër Serigne Touba gët nekk ca Zingoña toor fa kalakaar macha allah ñu jóge fa dem magal magal gu rëy ci dëkk boobu nga xamante ni si ne nag moom mooy Genève waaye mu def ca. yëfi Genève dama fay taxaw. ndax daa monument bu mag ci lislaam muy écorne muy Serigne Babacar Mbow Serigne Cheikhouna Mbow mi xalifa Serigne Babacar Mbow Serigne baa ngi lay siyaare mi ngi sa ginnaaw mi ngi lay ñaanal muy Cheikh Moustapha Cheikh Rafal moom Serigne Abdou Sakour ñaanal na Serigne Babacar Mbow foo ci Genève ñoo ko ànd ma nag moom ci Genève ñu wàccal ko fay kaamil ñaanal ko Cheikh Moustapha taxawu ko taxaw bu rafet taxawu taalibe yi dolli leen ci yoonu Baye Fall boobu leen fa jógee jàll Zurich ñu egg fekk fa Mouhamed Ijaasa mm-hmm. waaye ñu fekk fa Yaaram Diop fekk fa Baye Fall ñu yëkkati turu yàlla wa maanaam Cheikh Ibra Fall yal na ñu ko yàlla fayal ay Baye Fall la jël tas ci adduna bi fépp fépp fu ñu teg suñu tànk ci Europe ay Baye Fall lañ fa fekk. ak sëñ Lamine Fall Suisse. lay lay la la. Genève lamin Fall. Lamine Fall ak ak Serigne Aline Badara Diop mooy jëwriñ ja ëllëg lan war a fas yéenee def loolu nga xamante ne si ni moom mooy seen daayira ba nga xam si ni weer dimanche bi mujj ci weer wu ne lan koy def. ak Mouhamed Thiam Baye sànq lay dégganteeg taalibe ba nga xamante ne si nii moom la fa sëriñ Moustapha am fu mu dem am fay taalibe dañoo egg rek mu jébbalu ci moom ñu jébbal ko saw ma ni ko laaxi suba yaa koy toog ndax yaa fi njébbal mu bees pour xamala rek ni la diaspora ba ña nga fa waaye di suñu gannaaw ñoom it ñi liggéey ñu ngay góorgóorlu ci yoon wi kon yàlla nañu yàlla suñu borom dolli sutura dolli ñu kattan te fayal ñu sunu maam Cheikh Ibra Fall te am di ñu ñaanal ko mu yàgg fi te wér ndaxte liggéey bi kawe na macha allah kawe na suñu njort te ñu koy sant bu baax ba mu ñu ci boolee ndaxte wax dëgg yàlla jomb nañu jërëjëf Xaadim euh, Serigne Saliou Ndiaye ku ne xam ne le 31 mars guddi Serafal euh, gi muy ñaar fukki fan yi la koy amal euh, di mbokkum Serigne bi Mohamed moom nga wax nekk Genève tamit le 30 tamit day def guddi Serafal foofu ci Genève Xaadim le 30 boobu may wax man ak sëñ Moustapha dañ fay dellu dañuy dem dañ koy màggali jëbal addiye ji moo ñu fi indi fii ak ñaar ba ñetti fan bu ñu noppaloo rek dañuy daal di dugaat ci roppalaan gi dem fekke ji loolu noonu ndaxte Cheikh Moustapha kët moom moom Italie taalibe yi ca Italie loo leen wax lu dul Baye Moustapha ngi nii Baye Amdé ngi nii seen xol du sedd te amul màggalu ñaar fukki fan gu am Europe gu sang bii di di di di di teewe su di tarde su ko tardé sax taalibe yi ni ko ah sëriñ bi ren moom wax dëgg yàlla wéetal nga nu te moom it dafa mën a ñeewantal aw nitam. ba tax na ci lima lay wax rek mooy njëbbal addiya ji moo ñu fi indi waaye dañuy delluwaat ànd ak ñoom loolee noonee ñi màggalu ñaar fukki fan yi nga xam ñu ngi koy defee nga xamante ni si ni ma nga nekk ca ginnaaw Rome fa lan fas yéenee dem ndeysaan màggal fa ñaar fan ndaxte nag màggal googu ah murid yeeg Baay Faal ya nga xam si ñoom ñoo nekk foofu ca diaspora bi dañ na ànd juboo kii ni dañ koy def par région Italie nag seen région dafa rëy bu ne Lombardie dafa rëy day lang Brescia lamb Bergamo lamb Milan bu ne Piemonte dafa rëy day lamb Balocco lamb Torino lamb lamb Fano bu ne bu ne bu ne bu ne Liguria Liguria dafa rëy leneen ak leneen la loolu la ñuy wax naan Emilia Romagna ak yeneen ak yeneen waaye ren nag région ba aaye nekk région de marke ak ak ak euh, ngeen baal ma damay xaw a juum waaye fa Pescara bokk ak Rome ñoom ñoo aaye ren ñu fas fa yéen a dem màggali Serigne Moustapha dana fa teew incha allah ci kattanu yàlla jërëjëf. Euh, jërëjëf sëñ Moustapha dina fa teew waa Suisse tamit ñi ngi wàcc le 30 foofu guddig maam Cheikh Fall sëñ Mouhamed euh, Baye Fall di ak mboolem Baye Fall ak waa Paris tamit euh, fa la foofu ca Zurich kon ñi ñaan Cheikh Moussa Abdou suru maam Ben Ndiaye yàlla na sunu borom yàggal ko maam ma way jooja waay lay lay Fall sëriñ faala baax sama ma gën ci góor ñi mam mooy joojo waay mam mooy joojo waay laay la lay faal si xam ni dam ko saar sama ma gën ci góor ñi mi ngi wax mam mooy joojo waay joojo laa illa lay faal sa ko yaay sa maama gën ci góor ñi raw ca góor ñi laa illa lay addiyaam ju yaatu sëriñ baa ngi lay gërëm bu baax sëriñ bi nee na soxna musli moo jëf addi ci loxol boppam yàgg na koo def yàlla na ko yàlla fay ci barke maam Cheikh man lu ma waay yéene bëgg ma koo defal bul yàkkamti del jéem rek bis dina jot nga man ko yàgg na koo jëf yal na yàlla fay soxna Musli Jóob jàmbaar la lool waajuramu góor mook waajuru Cheikh Ahmadou Makhtar mi xalifab Cheikh Moustapha ñoo bokk lépp ñoo bokk kokki sëñ Amadou Makhtar moo booleeg moom ca xel ko moo ko woo téléphone paas ma ni ma xamante leen dem naa ba ci Sëñ Amadou Maxtaar mu ne ma yow kat seen Touba moo jur sama way jur Cheikh Rafal moo jur sa way jur te loo def noonu la sama rakk nga ma ne ko loolu mbàkke baax na jaay naa lépp ak taalibi rek moo ma ñor joxaat naa la lépp moo tax ma seere lool ci soxna Musli Jóob mu baax mii si moom mii la lépp jaare yàlla ko yàlla fay moo càmmeñam lu baax li sëñ ma sàmm Njaay wàqi yàlla na yàlla fay leen jërëjëf seen àddiyee ñëw na lépp dina dugg ci liggéey sëñ bi lépp lu ma waaye jox dina dugg ci sëñ bi dara duggeen sëñ bi jërë ngeen jëf da maa sant ni ma Aline Mbaye nañuy yaatal man ku bokk ci man dangay yaatal ndax te yaatal mooy li nga xamante ni si ni mooy li sa maam Cheikh Rafal bëgg moom la bëgg te nag Fall sa maam Cheikh Rafal kii la tiim daa yaatal daa fekk Cheikhul Xadim Xadim Rasul nekk njaq su sedd su neex ku dikk naan dem ba fa mu dikk jël jël njaq si defar ba mu jekk wut kopp bu sell teg ca kaw ku dikk naan teg sa morom ñëw naan bu ñu amee cër gi Sëriñ Bamba wala ñu am dara ba koy yaakaar sëriñ Tuubaa yàlla ak sa maam a tax kon Fall yaay borom yaatal waaye nag dinaa la sant dinaa la gërëm sama jëmm ju xeebu ji man sa su ngéwal sa sagarus ndongo sii nga def ma nii nga ma def te xam nga xam naa allahu xam na sa maam Cheikh Fall xam na ak dongo yi nga xamante ni si nii ñi ngi seere xam na ni la rajaalo nangu naa ñett xamuñu nag waaye ñaar xam nañu man dama lay sant yàlla ci li nga ma boole ci sa liggéeyu maam bi te yàlla nga yàgg yàlla nga yegg naw yoon yàlla bu la benn pakk fël li nga bëgg yàgg xam faal yàlla na ko yàlla defal te li nga bëgg leen dong la jaam ñi texe li nga wax moo am koo jox mu bari la ku la jox bari la faal ndaxte yow sa loxo bi dara du ci taxaw lu ci dig nga jël ko joxe ko bakke sera faal faal yaa di gor yaa di jàmbaar yaa baax yaay baax te nag yor xaalis nuru xaalis su ko gën yow da ngaa nuru xaalis faal yow yoroo xaalis yaay milliardaire bi nga ëpp xaalis ci milliardaire yi maam Cheikh Rafaani doo moroomu góor yàlla nga yàgg yàlla nga wér. waa jërë ngeen jëf ba tey yéen a fii kër sëñ mu Moustapha Fall ibnu Serigne euh, Abdou Sakor Fall euh, feggoog euh, Baye Jibril Kane moom Baye Mbaye Kane Xandi moom Cheikh mu saa waaye moom sëñ Abdou Sakor moom maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Jibril ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaare at mu ne nga ànd ak sëriñ bi muy Cheikh Moustapha mu jël nag yu bari. Euh, jébal ko magam xalifaam muy Serigne Fallou moom sëñ Abdou Sakko. auzu billahi mina seytaani rajiim wa inni unsha bika wa suriyataha mina seytaani rajiim rabbi auzu bika min hamazati shayaatini wa auzu bika rabbi an yahdurun ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm ci turu suñu saafaal moom sëñ Abdou Sakko ah sëñ Moustapha nag lii muy def defuñu ko boppam doon képp ku yaakaar Cheikh Abdou Sakor rek yaa ngi ci biir waaye nag da di soññee soññee bi mooy taalibe def amul lu muy ndigal te ndigal lii Cheikh Ibra sëñ Tuubaa moo ko joxoon Cheikh Ibra Cheikh Ibra di ko jëfe ba bàyyi fi Sëñ mu di ko jëfe man de fekk naa ca Daaru Fall ñu togg ay ndogu sëñ ab Sakko daa yónnee ca fasu ba Aliou Kébé ñuy wax mbongo moo ko mu ne ko Aliou Kébé takkal fas mu takk fas ñuy indi ko Daaru Fall indi ndog yi fii ci Touba loolee nag jëf la joo xam ne ji dina réer mukk la ndax suñu ñoo ko tàmbalee gis Cheikh Ibra wàcc ci sëñ ab kon su ci suñu Moustapha de sof jëf ju toll nii defalu ko boppam dong waa kër Cheikh ab Sakkoor gépp la ko defal jaaxal si Cheikh Sakkoor lépp la ko defal ñoo koy ñaanal nag ci kàttanu yàlla barke yonent bi barke sa Sakkoor mu yàgg koo def na ko yàgg a def te yàgg faa fekk kim koy defal ñun ñii koy seere mu yàgg koo teewe njabootu sëñ Sakkoor gépp la ko defal di doom di taalibe di ñëpp ñoom la ko defal sant nañ bu baax ñëpp nag nañ maase ñaanal ko saa borom yàggal ko fi te wéral ko dolli koy xéewal ci kat nag bàyyam bu baax jërë ngeen jëf. jërëjëf euh, Baye Jibril di doomi euh, Baye Mbaye Kane Xandi moom Serigne Abdou Sakor Fall yaay booy eh, ñu ngi lay nuyu bu baax euh, di la siyaare di ñaan sa bu baax bi Baye Baye ji aw Mbeng moom Serigne Abdou Sakor Fall tey jii tey jii ku ne xam na ni xol yëpp sedd na xol yëpp bëgg na ci jàmbaar ji toog muy Cheikh mu Fall mu Serigne Abdou Sakor sa baay bu baax bi daa àndoon ak Serigne Abdou Sakor Fall tey jii ñoom ñëpp. nekk ci ginnaawu Cheikh Mouhamadou Fadilou ànd ak Cheikh mi nga xamante ni jàmbaar la at mu ne mu yëkkati lim lim bu am solo eh, jébal ko magam muy sëñ Fallou mu sëñ Abdou Sakkour yan kàddu ngay wax ci bis bi. asalaamaaleykum. waa Pallé maa leen di nuyu di leen ñaanal di wax ne nag damay sant yàlla ba ma duggee ci Baye Fall gi ndax man doomu Badiawoo Mbeng laa di soxna sëñ Abib Mbeng sëñ Fallou Fall ñu xam ne bis bi rek dañ ciy ñaan yàlla rek borom bis bi yàlla na ko gën a man moom day nitu ñëpp man day sama xarit di sama waay di sama wóolare di sama xarit sëñ Tafa nëbbu ma daraam sëñ Tafa sama nit la sama xarit la dama koy ñaana ci darajey Cheikh Ibra lim man ren balaa déwén yàlla na ko gën a man yàlla na fanam bu gudd yàlla na gudd fan lool mënuma wax nag may ñaan ci yàlla daal yàlla na ko yàlla ak yonent bi ak sëñ Fallou defal jàmm yàlla ay millions. ci dara jaay Mouhamed maa ngi koy maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm mënuma wax nag yal nañu yàlla defal jàmm jërëjëf jërëjëf. yéen a ngi ci liggéey bi euh, feggoog Serigne Bara Kane euh, di jàmbaar nekk fii ci tuut euh, Daaru Fall Godio nekkal fa Serigne bi lu bari ci liggéey Serigne bi mu yor ko foofu Serigne Bara ku ne xam na ni at ji Cheikh Moustapha at mu ne da koy jébbal Cheikh Mamadou Fadilou waaye ku ne xam na ni ku yukkul yaa wàññi waaye ku ne xam na ni Cheikh Moustapha yokku na kër Serigne Abdou seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci bu tedd sallallahu alayhi wa sallam sant sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul sant sunu ñaari waajur di sant sunu Mudu Musaa yàlla yàggal ko fi te wéral ko tey muy jëf joo xamante ni bii képp koo xamante ni bii ab jullit nga mbaa nga di taalib bokk ci kër Cheikh Abdou Sakor xam nga ne sañ Moustapha ni muy jëfe kenn jëfewu ni ni muy doxit kenn doxewu ni loolu moom ñëpp nangul nañ ko ñëpp nangul nañ ko boo xamante ni bii maanaam lépp lu mu am da koy jox joxe nag ba ko joxe jeex nga joxe la nga gën a bëgg jox ko say bokk moo gën a te man ànd na ak moom daaw ñuy jébbale sëñ Fallou di ko santal ko ren jii gis nga daf koo yokkaat ku daan joxe fukki million ak juróom ren jii nga joxe fukki million ak juróom benn xam nga ne yokk na ku yokku na wàññi kon nag asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Moussa daal jàmbaar la yàlla ko yàlla yàggal ko wér barke suñu tuwaat Euh, jërëjëf euh, yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér muy Cheikh Moustapha Fall ibnu Serigne Abdou Sakor jërëjëf Baye Mbaye ba ci kanam incha allah rabbi feggoog sunu yaay ji euh, soxna Ami Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la ci liggéey bi nga xamante ni Cheikh Moustapha war na koo jébbal magam ñu baax ji muy Cheikh Mouhamadou Fadilou. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax leen ñaanal di ñaan ci Cheikh Abdou Sakor min amul dul moom yal na fi yàgg yal na ngeen di ko tàmbalee ci sëñ Modou Fallou Fall muy xalifa ak maam Seex maam Seex Abdou Sakkoor ak magam ak rakkam yan na fi yàgg Fall te wér di ñaanal nag sëñ Moussa Fall mii di joxe tey jii bëgg na ñëpp Fall yaaram bëgg nay magam bëgg nay rakkam bëgg na taalibe yi bëgg na ñëpp ma dégg Demba Ndiakhate ñoom amuñu lu sëñ Sakkoor lu mu taxan ak lu mu bari sëñ Sakkoor rek la koy jox. maa ngi ñaan ma gudd fan ak wér ak yàgg fi te wér lool faal lépp lu mu naal ci yoonu kër maam Seere Faal yal na ko man moo ke magam ak rakkam ak ñun taalibe yi ñun amuñu lu sëñ bi saakoon nag mooy sunu lépp mooy sunu ndey mooy sunu baay mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg jërëjëf Faal yaaram lu waay def ci kër sëñ bi saakoon rek ñun nga ko defal jërëjëf ma dégg Demba Ñaxana. Ah, jërëjëf Baye Mbaye dañuy yëkkati jotaay bi ah, ba ci kanam incha allah rabbi jërë ngeen jëf. mbooloo mi ñëpp nuyoo bi gën a sell bi gën a jot nuyoo bi yëpp yëpp duñ koy teg ci loxool magam yu tedd yii te Cheikh Mamadou Fadilou Fall yi mu Cheikh Sokone Fall nekk ci bopp bi ak Cheikh Mamadou Mourtada Fall ak Cheikh Mortala Fall ak Serigne Aliou Fall ak mboolem njabootu Cheikh Sokone Fall bu jigéen yëpp ndax ñoom ñëpp ñu ngi nii ci baas bi soxna Nooy ak soxna Fat Fall soxna Moomi ñoom ñëpp ñu ngi fi. ànd ak ñi ñu bokkal Cheikh Ibrahima ñëpp ànd ak moom ci bis bii kon Cheikh Moustapha nee na yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu taalibe yi yëpp nag waaye di nuyu xarit yi di nuyu am di jàmm yi di nuyu dëkkandoo yi ak soppe yi yëpp mi ngi leen di nuyu bu baax a baax ndax kat liggéey bii nga xam ne moom la tàmbali te ba mu ko tàmbalee ba léegi sii deltuwu ci ginnaaw benn yoon bët bu set mi ngi gën rek di jëme liggéey bi kanam muy at yi nga xam ne nii. da koo ànd ak waa réew mi ànd ko ak xarit yi ak soppe yi ànd ko ak taalibe yi at mu jot Cheikh Moustapha wax dafa wax ne dana fi indi loot li mu fi indi woon ndax day day wax ne at mu nekk gàccaay gàccaayal at mi mu génnoon loole firnde wu na ren ndax kenn ku ne xam ne yéen ñi nga xam ne da ngeen dajale woon seen dërëm ak seen ñaar dërëm jox ko ko mu dajale ko indi ko ci magam ju baax ji mu toll ci fukki million ak ñaar fukki junni waaye mu nekk ñaar fukki nag yoo xam ne nii boole na ko ci indil ko magam ji tedd ji di Serigne Fallou Fall moom Seydou Sakor Fall mu koy ñaanal suñ borom bi yàggal ko fi lool te wéral ndax da ngeen a dajale seeni addiya te addiya kat saa yi soo ko dajalee jox ko sub Serigne lam ca def rek noonu rek ngay ngay gën a bëgg moo waral saa yi Cheikh Moustapha wootee ne addiya ji maa ngi koy dajale ngir yóbbul ko ci sama mag ju baax ji Serigne Fallou moom Seydou Sakor Fall yéen ñëpp kenn ku ci nekk la mu am mu dajale ko. ñu jox ko ko moom Cheikh Moustapha Fall mii mu ne nag mu koy leeral sëriñam bii di baayam di léppam ndax da daan wax ne suma sëriñ Fallu ne woon na nga na nga toog biir li Linguère bii bu ko génnati man Cheikh Momadou Moustapha Fall duutuma ko génnati te loolu rek mooy aw doxinam mu wax ne saa yu suñ ko séenee muy dox nanu xam ne ci ndigalul magam ji rek la nekk mu ne ko leeral ñépp nag di ko leeral waa réew mi ak bitim réew ñëpp ndax kenn ku ci nekk jël nga saw ñaq jox ko ko ci mu indil ko ci liggéey bi nga xam ni Serigne Touba moo ko santoon maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina ci njaareem kenn ku ne xam na ne ba mu koy woolu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru baraxlu mu woolu ko ba mu ñëw mu ànd ak sëñ Yaaram Mbay ak mag ñu bari ba mu demee dane sëñ Yaaram Mbay bu ñu eggee sama sang bu tedd bi lu mu wax na ngeen ko bind ndax su ma génnee ngeen man ma koo wax ba mu egsee Serigne Touba dana ko damay séentu gan te gan gi kat bu ñëwee day reer waaye du añ te mën na fi am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wala fanweeri fan ba mu génnee dem egg ci kër ga laaj sëñ yaaram mbay mu wax ko ko dana ko a ah, doom sëñ bamba sama sang bi de koor la may wax daa wax ne weeru koor yi bu ñëwee naa togg ay ndogu di ko indi fii ci kër gu magge loolee nag Cheikh Moustapha na ko waajuram moo daan defe muy sëñ Moussa Koor Fall di ko def 80 ba 84 bàyyi ko ak ñoom ñii ñu yokk loolu lépp ba kenn ku nekk ku xamoon kër gi xam na mu daan doxe xam na leen sëñ Moussa woon loolee de yokk nañ ko ba mu suñu ab sakkoor ñëwoon doon duñ sa duñ saase aw toogin Cheikh Moustapha wax ne addee ji ngeen koy jox jox ko kenn ku duñ magam ji mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci seen taxawaay ni ngeen ko mel la yonent bi sallallahu alayhi wasallam am dafa waxoon ne am na de ay minbar yu nekk ci ron aras minbar yooyee ñu ngi ko liggéeyee leer ña nekk ca minbar ya seen yére noorul leer la wujuhum seen xar-xaram ya noorul leer la waaye du ñu ay du ñu ay sayid saaba yi ne ko faxaal ya rasulullahi si naa melalal ñu ñooñ ñooy ñan mu ne ñooñu kat ñooy ñuy dimbalante te yàlla tax waaye ñuy siyaarante yàlla tax waaye ñu soppante te yàlla tax ñoom waa kër Sëñ Sakkoor nag dañoo soppante ci seen biir bëggante seen biir wóolante ci seen biir àndandoo doon benn jiital seen mag ju baax ji ka war a toppee topp ja ka ca war a topp topp ja te sëñ Fallu mi day wax ne lépp lu ma waaye di liggéeyal di ko liggéeyal sama mag yi sama rakk yi na nga dem liggéeyal leen ko bañ egg ndax man kat dama fee ngir di leen liggéeyal ngeen seen waajuru tedd wi Cheikh Moustapha kat li ma naa jot lii ma wax waaye dafa waxoon ne loolu nañ koo leeral rek ci magam ju baax ji ak bokki taalibe yi ak xarit yi ak am di jàmm yi. nga xam ne moo yore liggéey muy Serigne Moustapha Diop Serigne Ibrahima Diop nga xam ne moom mooy jëwriñu liggéey bi ñu def ko ay groupe bi groupe ndigal bàyyi tere jëfe ndigalu Serigne bi te doo leen seen ci lenn lu sëriñ bi di tere mu wax ne nag ñoom ñu ay jàmbaar lañ ndax Serigne Ibrahima Diop kat mi ngi ci bopp bi ànd na ñi liggéey bi ñoom guddi ak bëccëg. mu doon ñetti groupe yoo xam ne da koo jiite nee na nekk fii di senegal de ay soppeem ak i xaritam nee na ñoom ñëpp ñu ngi ci biir nee na ak taalibe yi nee na ak góor ñi ak jigéen ñi sëriñ bi nee na kat desul kenn nee na ñëpp la sëriñ Moustapha nee na mi ngi ci soññ ñëpp ci groupe jëfe ndigal bi bàyyi tere nee na nag na ci ñëpp bokk nee na ku ci bokkuloon nang ci bokk nee na nag te fas tënk ci ndigal loolu ndax nee na kat lépp luñ man ci foofu rek lañ koy jaarale sëñ Moustapha nee na mi ci ciy soññ boppam di ci soññ mbooloo mi yëpp nee na nag di ñaanal njabootu Cheikh Sokor Fall gi muy jigéen ñi ak góor ñëpp ndax ñépp baax te nee na kat lépp lu man moom Cheikh Moustapha nee na ñoom ñoo tax mu man ko nee na dañ ko bëgg lool yërëm ko nee na yemalewuñ ko ak kenn nee na ak ñu koo bëgg ne nee na nim leen niñ ko bëggee yéen sax xamu leen ko nee na ump na leen de nee te dafa yàgg nag nee na dafa bëgg mbooloo mi na ko ñëpp maase xam nañ xam na ñoom ñii fañ ko teg suñ fàllu mii seex Moodu Murtada mii seex Mortala Fall sëriñ Aliou ak soxna yi ñoom ñëpp dañoo mel ci moom noo xam ne dafa yéeme te neenu ñu mel mel nañ ci kenn ku nekk nee na ñoom ñëpp kat noonu lañ mel nee na taalibi itam ñoom ñëpp noonu lañ mel sëriñ bi nee na kon jërë ngeen jëf nee na xolam seet na guyu nee na li bëgg daal ñun ñëpp ñu àndandoo ak dal amuk taalibe di déglu ndigalu sëriñ bi rek nee na bañ a def lenn déglu sëriñ bi rek nee na jërë ngeen jëf. sëriñ bi nee na mi ngi sant yàlla bu baax nee na di sant nag Cheikh Abdou Sakor Fall sëriñ Fallou sëñ ab Sagor Fall lay tàmbali ci moom lay yemaat nee di sant nag njabootam gi fi nekk nee na tàmbalee ci sëñ Moussa Fall sëñ Modou Mourtala Fall mi ngi nii toog sëñ Mortala Fall sëriñ Aliou Fall ak toog tey nee na ak magam yu baax yi toog ci biir nee na ñoom ñëpp di njabootu Cheikh Sagor Fall Serigne Fallou nee na mi ngi leen di sant leen gërëm bu baax nee na moom kat day wax ci turu njabootu sëñ ab Sakkoor Fall gi yëpp ndax nee na lii Serigne bi def seen rakk ji def ko nee na kat ñoom njabootu sëñ ab Sakkoor Fall gi yëpp la ko defal ak taalibe yëpp ndax nee na kenn ku ne yéene nga koo def liggéeyal sëñ ab Sakkoor kenn ku nekk. nee na kenn ko ne xam nga fi sa dooley bàyyi toll ak kattanam amul limite neen lépp lu ñëw rek nañ xam ne kat kilifa googee di seen sa góor moo ko def nee na sëñ Moustapha nag nee na ñu koy sant ñoom ñëpp nee di ko jotali nag bokki taali bi yëpp nee na di ko wax kóllëre yëpp nee na di ko waxit mag ñëpp ci taxawaayam ci kër gi ak ko seefam ndax dafa ñëw nee na jël magam yépp nag teg leen ca nee na lu ñu wax rek mu def ko nee nag luñ koy tere kat duñ ko ca fekk moom nee na noonu la mel ci njabootu kër gi yépp nag nee na muy doom yi ñu ngi nii toog jàkkaarloog moom muy jarbaat yi muy magi taalibe yi nee taxaw bi mu taxawaay taxawee ci kër gi nee na ñoom ñëpp kat xam nañ ko nee na seeree nañ ko it nee na ku fi ñëw tayit nee na da xam ne jëf ju nekk day am seere nee na ndax wax li ci baax nee na booy wax ñëpp xam ne li ngay wax moom lu am la te nee na kat moom suñ fal lim leen wax nii nee na fu teg nañ seen bët nee na ci saayir si nii nee na baatin bi nag nañu xam ne moo ko raw ndax la may jëf ca biir nee na li ñuy wax dana jëf addi joo xam ne nii da koy jëf ca biir nee na te kenn kat du ko xam nee na da koy jëf ci njaboot gi di ko jëf ci magi taalibe di ko jëf ci ñoom ñii neena te mu bëgg kenn ku ko yëg nag nee na kon nag nee na jëf ak moom ci kër sëriñ bi nee na kat sa waajur wu tedd woo suñu sakkoor faar rek la koy seereel nee na te nañ xam ne suñu sakkoor am na pay te nag moom kenn du moom nee na lu ko waaye defar rek dana la fay nee na danaan wax ne du ma sëriñu gone ndax boobu kat martabaam fa mu tolloon sori na lool daa di wax ne du ma sëriñub jigéen itam nee na lépp lu may jox danaa ko téye nee na fa ba jox jote nag mu jox la ko nag nee na sëñ Sakkoor daan wax ne du ma jëkk sakk jëfi kenn nag nee na kon nag nee na sëñ Moussa lii mu def nii. nee na jëfi Cheikh Sakor Fall jàpp la jëf nee na kon nag ku def lu baax am lu baax nee na yàlla kat kenn mënu koo nax nee na nit ñi ñooy naxe waaye lu waay def yàlla tax te la la war nee moom moo lay fayal boppam nee na kon nag nañ xam ne jëf ji jëf nga ko fu fu mat a jëf nee na def ko ci sa kër waajur say mag ngir sëñ Abdou Sakor Fall nee kon nag sëriñ bi nee na mi ngi lay sant dina gërëm bu baax Cheikh Moustapha nee na suñ borom yàggal sa taxawaay bu baax nee na guddal nag saw fam wéral say cër nee na ak képp ku la ko yéene nag nee na ak képp ko ànd ak yow nee na bokk taali bi itam nee na yéen ñi ànd ak sëriñ bi nee na kat sëriñ Fall nee na mën naa wax njabootu suñu Sakkoor Fall rek nee na na ngeen jàpp ci liggéey bu baax te jàppale ko nag comme ni leen ko waxee nee na lépp lu ngeen ci man def leen ko nee na da ngeen ci dëppoo ak ngërëmal Seex Sakkoor Fall nee na Cheikh Sakor moom ku am ngërëmam moom nee na da am texe adduna ak goog àllaaxira nee na te loolu képp nag la ñu wut kon nag na ngeen gën a góorgóorlu bu baax nee te yàlla nag musal ñu ci saytaane musal ñu ci pexam saytaane akum ndog ak pakk yëpp nee na kat sëñ Fallou nee na yéen a ngi ci aw yoon te wàccu yoon wi nee na yoon na ku koy wàccul da nga àgg fa nga jëm nee na yal nañu suñ boore suñ borom boole ak àgg fa ñu jëm nee na am wërsëg gu bari ak wér ak xéewal gu bëree bari ci barki sëñ ab Sakkoor Fall sëriñ bi nee na Cheikh Moussa Fall na leen bu baax a baax a baax nga xam ne ñoom la nekkal ci bitim réew. sëriñ bi nee na mi leen di sant nee na di leen gërëmit bu baax a baax a baax nee na sëriñ bi nee na dem na fa ren sëriñ bi nee na Cheikh Moustapha liggéey na fa liggéey boo xam ne nii nee na ku fa dem te bokk ci njabootu Cheikh Sakor Fall nee na da nga xam ne Cheikh Moustapha liggéey na fa liggéey bu wér a wér a ndax nee na liggéey ci taalibe yi ci mbindeef yi dara ëpp ko doole. nee na te ña fa yóbbu ñëpp wan na leen aw yoon jàngal leen aw yoon wan leen lan mooy sëñ Abdou Shakor Fall ba ñëpp xam nañ ko nee na nag ba ñoom ñëpp mosoo nañ ci yoon woowu kon ñooñu waa bitim réew nañ xam ne nee nañ xam ne sëñ Moustapha ndaxu leen ndax nee na wan na leen yoon wi nee na buñ ko xamoon nit yokku na ko wan leen kan mooy Cheikh Abdou Shakor Fall ndax nee na sëñ Sakkoor kat mooy maam Cheikh ma Fall rek nee na moom sëñ Fall kat wax ko moom sëñ Sakkoor moo ko wax waaw nee na kon nag ku nekk ci am yoonam di ko liggéeyal nga sam xel dal nee na loolu rek mu am solo sëriñ bi neen kon jërë ngeen jëf nee na sëriñ bi sëñ Moussa sëriñ bi nee na gis na nee na ku xam yàlla xam ëllëg nee na xam Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall nee na nga xam ne foofa dara du fa doy nee na kon nag lii nga def da koo xam rek nee na sa maam maam Cheikh Ibrahima Fall moo la ko wan ndax nee na kat maam Cheikh Ibrahima Fall mooy seet ku ko neex nee na moo billa bunt wan la loo xam ne wanu ko kenn kon nag. nee na maam Cheikh Ibrahima Fall dalaa woon biiram de na yow Cheikh Moustapha nga ñeme ko ba noppi ñeme koo jëfe nee na kon nag nee na yàlla na la sa baaju boobu tedd wa jàppale nee na kat moom Serigne Fall nee na mu nee soo sa da wax lépp de waaye nee na ñoom liñ man mooy sant la ba noppi ñaanal la nee na ak sa mag yëpp nag ak sa taalibi yëpp ak njaboot gi yëpp ndax nee na lii kat ab royukaay la nee na def lu baax moom nee na la ci taalibe yi nee na la ci njabootu Sëñ Sakkoor ba ci say sët ba ci sët sëñ sëñ Sakkoor yëpp nag nee na xam ne am njàng la ci ñoom kon nag liggéey la bu rëy a rëy nee boo xam ne yëmul rek ci jëf ji nee na day liggéey lu bare bare bare ci kër gi kon nag yal na la sa waajuru tedd wa jàppale sëñ Sakoor Fall sëriñ bi daal nee na sant na ba baax a baax nee na ñi bokkal Cheikh Sakoor it sant nañ la bu baax a baax a baax nee na loolu nga wax ne dañ laa bëgg nee na muñ laa ñàkk bañ a bëgg ndax nee na mag boo ko joxee cër bi nga war a jox faw mu bëgg la ndax nee na kat loo yor jox ko say mag te luñ nekk yaa ngi tam sëriñ bi nee na léeg-léeg sax nga def loo xam ne ñoom duñ ko yëg sax ci biir nee na dañuy ñëw rek ne Cheikh Moustapha jaaroon na fi def na nangam nee na dem na ba ci jabari soxna Baye Mbaye Diop lagan fii nee na ñu ngi ko saraxal nee na sëñ Moustapha mii nagam moo ko yónnee nee na sëñ Mourtala Fall mii la wax yónni ko mu ne ko sëñ Mour sëñ Moustapha na nag bi sëriñ bi nee na ak yeneen ak yeneen yu demee noonu nee na mun a lim lépp nee na xanaan kay dina sant di la ñaanal rek jërëjëf kon ñu tàllal rek jërëjëf kon ñu tàllal. amiin na ñëpp tàllal آمين آمين mu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp. di leen sant. di leen sant. ci jëf ju rëy jii. ci jëf ju rëy jii. ñu jëfal Moustapha Fall. ñu jëfal Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall. moom Cheikh Abdou Sakkour Fall. moom Cheikh Abdou Sakkour Fall. moom maam Cheikh Ibrahima Fall Sadiq Ba. moom maam Cheikh Ibrahima Fall Sadiq Ba. bés bi nag. bés bi nag. daam lu ci xew. daam lu ci xew. Cheikh Rafal ñëw na ci kër gi tey. Ah. Cheikh Rafal ñëw na ci kër gi tey. ku fanaan ci kër gi mbaa nga dugg fi. ku fanaan ci kër gi mbaa nga dugg fi. sa yaram araam na sawara. sa yaram araam na safara. boo fi indee tawat. boo tawat. di nga wér. di nga wér. boo fi indee ñàkk. boo fi di nga am. di nga am. li tax ma wax ko nag. li tax ma wax ko nag. teguma ko ci daanu kotug murit. teguma ko ci daanu kotug murit. daf maa leer naññi. daf maa leer naññi. ndax moom mii bi muy tuut tànk suñuy ndax moom mii bi muy tuut tànk ci suñu nopp may nekk fii di liggéeyal baayam may nekk fii di liggéeyal baayam ci la ma xamaloon ni ci la ma xamaloon ni mu Fall Moustapha Fall la nga bëgg la nga bëgg bu ko sa doom munut bu ko sa doom munul Moustapha dina ko def Moustapha dina ko def te mi may defal loo xam ne. te mi ngi may xam defal loo xam ne. am na ñoo xam ne. am na ñoo xam ne. maa leen jur. maa leen jur. te defuñ ko. te defuñ ko. mënuñu ko. mënuñu ko baa buñ ko mënee defuñ ko. baa buñ ko mënee defuñu ko. Moustapha sa bàyyee nu boole. Moustapha sa bàyyee nu boole. man su ma bëggoon a dem Makka. man su ma bëggoon dem Makka. kenn du ma yóbbu ku dul yow. kenn du ma yóbbu ku dul yow. maa fa natt a dem. maa fa natt dem. ndax jumaa yi sëñ Tuubaa ji. ndax jumaa yi sëñ Tuubaa ji. du ma ko fi romb. du ma ko fi romb. di dem Makka. di dem Makka. naari di ma ba ma. ma ba ma. te la amoon fa gétti ndar te la amoon fa gétti ndar am si ndóoni am si ndóoni sëñ Touba yëpp na ko waa Touba sëñ Touba yebal na ko waa Touba Touba ci ndóoni gédeeg ci ndóoni ba mbàkkee ngi mel ni ndar ba mbàkkee ngi mel ni ndar jabaa ngi juuti jabaa ngi juuti kon nag bu leen di fab bu leen di fab xéewal yi bamba indi xéewal yi bamba indi yemale ko seen kër yemale ko seen kër fàtte Touba ak ndindi fàtte Touba ak ndindi man nag ndindi fa laa falaa seexe ndindi falaa seexe sëñ Fallou fa la ma dindilee sëñ Fallou fa la ma dindilee njàqareel àdduna njàqareel àdduna ak lu alaaxira ak alaaxira kon bu ma demee bu ma demee ba am doom ba am doom muy sama doom muy sama doom di sama rak di sama rak baayam sedde ma ko baayam sedde ma ko gisuma te booba gisuma mu gis ma mu gis ma bëgg ma bëgg ma di ma teral di ma teral man jox na la ma sëñ Abdou Sakkoor gaynde Ngolori digoon yëpp Cheikh ko moom nag yéen ñi ànd ak moom di ko liggéeyal yéen ñi ànd ak Cheikh na xam ni te xam moom ndabam moom ndabam càcc du ci dem càcc du ñu dem ku ko joxub tànk ku ko joxub tànk dina la jox junni dina la jox junni ku ko jox junni ku ko jox junni mu jox la million mu jox la million ku ko jox million ku jox la ko million mu jox lay milliard loolu am na darajaam loolu am na darajaam te feeñul te feeñul bi mu feeñee nag nag bi mu feeñee nag la ma ca xam la ma ca xam du ma ko wax ci rajo du ma ko wax ci rajo waaye xam naa ni daal naa ni daal jàpp naa ko jàpp naa ko ku ko jàpp ku ko jàpp di nga am di nga am ndimbalul adduna ndimbalul adduna ak alaaxira kër gii na tey kër gii na tey ku fi dugg ku fi dugg sa yaram araam na sa yaram na araam na safara maam Cheikh Rahim Fall mi ngi ci kër gi Cheikh Rafal ñëw na fi Cheikh Rafal ñëw na ci kër gi te ko génn te dootu ko génn ma bëgg nag ma bëgg nag seere si Fallou Fall seere seere ci Cheikh Mamadou Fadilou seere di jëwri di maam Cheikh Rafal di jëwri ni Cheikh Abdou Sakko di jëwri ni Cheikh Abdou Sakko ñëpp di ko dégg ñëpp di ko dégg xol yëpp ko nangu xol yëpp ko nangu magam ya toog fee magam ya toog fee te yaay jigéen te yaay jigéen seereel nañ ma ko seereel nañ ma ko nañu seex Moustapha neen Cheikh Moustapha ñun jooyuñ doom ñun jooyuñ doom moo nuy dundal moo nuy dundal diñu wodd diñu wodd diñu faj diñu faj ku faatu moo lay ñaan yàlla fal cat. yàlla na yàlla fal cat lépp amiin. cat daal la ñuy ñaan. cat daal la ñuy ñaan mu teggi cat nag. cat nag. du dugg ab nay. du dugg ab nay de. Serigne Touba. Serigne Touba. bi mu nekkee njaareem. bi mu nekkee njaareem. diggante nit ku ñuul. diggante nit ku ñuul. ak ku weex. ak ku weex. ñëpp la daa dimbali. ñëpp la daa dimbali. xam nga moom. xam nga moom. dem na ba Moussa Ka ni ko. dem na ba Moussa Ka ni ko. nee na wurus. wurus. mbaate ab xaalis. mbaate ab xaalis. bëy ak nag. bëy ak nag. xar ak gileem. xar ak gileem. dadaa buub. dadaa buub. di jox ñay laaj. di jox ñay laaj. du koy néega deekaleem. du koy néega deekaleem. Moustapha nag. Moustapha nag. loolu lay def loolu lay def. wutalu ko wolof. wutalu ko wolof. wutalu ko murit. wutalu ko murit. wutalu ko tiijaan. wutalu ku ñëw fii sa njàqare. ku ñëw fii sa njàqare. booy dugg ci këram gi. booy dugg ci faj gis nga. ngi siyaare mbokk taalibe bi yëpp di siyaare sëriñ bi sëriñ Moustapha moom sëñ Abdou Sakor Fall di caat mi nga xam ne semmal na mboolem caat yi di nit koo xam ne taxawaayam fii ci réew mi sax ump nañu waaye taxawaayam ci bitim réew defe naa ne kenn ku ne xam na ko léeg ma woo sama benn taalibe waajur mu ne ma maa ngi nii jóge ci ay cantam kon fa tabaarakala moom ab taxawaayam ñi ngi koy rafetlu bu baax liñ koy ñaanal daal mooy. am ndog bañ koo bañ koo bañ koo fànq yàlla na àggale barki Xaadimu Rasuul te ñun ñëpp ñu ànd koog moom moom daal lees mën a wax ci moom daal xam naa ne bari na lool waaye nag mbiram dafa yaatu ba kenn mënu koo jeexal kon dañuy sant tey bëgg tey ñaan suñu borom guddal aw fanam doole ak wéram barke barkeelu bu yëngatoom ñu ngi lay siyaare bu baax tey danoo bég lool ba mënumaa wax lu bari kon dañuy jox sëriñ bi mu soññaat mbokki taalibe yi Fall Ndiaga asalaamaaleykum wa Eh, auzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yàlla bi alayhi salaatu wasalaam di sant son yaakaar te ëllëg tubaa Touba Xaadimu Rasuul noonu nañu di sant noonu nañu sante maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina eh, eh, di ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général murid suñu borom yàggal ko fi loolu te may ko wér ak njabootu Serigne Touba Xaadimu Rasuul gépp ñoom it yàlla yàlla bàyyi leen fi te wéral leen ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall bak si ab sàkkur Euh, di nuyu euh, ak di ziar tamit euh, sëriñ Amdi Fall mii xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridina suñu borom yàggal ko jot may ko wér ak njabootu maam Cheikh Fall yëpp bàyyiwuma kenn daal góor jigéen mag ndaw ak taalib yëpp ma nee moom nañ xam ñëpp a ngi ci biir góor a ngi ci ndaw ñëpp ñëpp ci bokk képp kuy taalib rek te jaayante wala nga dee ab julit wala nga mbindeefu yàlla rek jot ak kàddu siyaar yooyu ak kàddu jégul yooyu ñaan yàlla yàlla gën a dimbali yàlla yàlla gën a taxaw te kàttan ñu dooleel ñu ci barke maam si Fall bak si yab Sakko ndax euh, liggéey bi euh, dafa doon liggéey boo xam ne taalibe yi dañ cee taxaw taxawaay boo xam ne ñun euh, yàlla rek moom seen fay yàlla mi am fay nag yàlla ma leen yàlla fayal yàlla yàlla doole leen gën leen nag kàttanal defal leen xéwal yoo xam ne fooguñu ko seen seen bopp ndax suñ borom am na ko mën na ko kon yàlla ko yàlla ko yàlla def ci barke Cheikh Abdou Sakko Fall ñu nuyu baax baax tamit di nga xam ne taalibe képp koo xam si jël sa alal def ko ci bis bi muy addi yi euh, ndax euh, kenn ku ci ne euh, ndax dama leen ne liggéey bi dafa doon loo xam ne comme ni ñu liggéeyee Touba ci kanam la dañ ne Touba ci kanam di laaj lees man di ko def fuñ xam ñu nag dañuy dañuy laaj lu kenn mënul di ko def fuñ fu leer nañ loolu mooy liggéey bi ñu ànd ci ak taalib yëpp nag rawatina waa daayira Jazboul Mouride rawatina dis euh, bu nag mu waxee mooy képp ko aju ci man rek yaa ngi ci biir muy sama soppe xarit ñëpp rek yaa ngi ci biir taal bi yëpp nga ci biir muy góor groupe yi nga xam te moom lañ sos tamit euh, muy groupe euh, ndigal ci sëriñ bi jëfe benn noonu tudd ñaar ñaar sax lañ yoo xam ne ndigal ci sëriñ bi jëfe noonu lañ tudd waaw ah, yeneen ñaar ñu ngi tudd jëfe ndigal bàyyi tere yooyu tam noonu tudd jëfe ndigal bàyyi yooyu tamit muy groupe yoo xam ne ñi ci nekk yëpp ay murid saadix lañ ay jaayante ndax kenn du ci wax benn kàddu bu dul jëf jëf rek mooy mooy mooy liggéey maa ngi yónnee nag message bi bépp soppe wala bépp taalibe boo xam ne si ne euh, am nga yéene jëf wala nga am yéene euh, bokk ci liggéey bi rek maa ngi lay digal nga bokk ci ci ci ci ci ci groupe boobu ndax euh, tawféex bi ci la nekk te dafa bokk ci li xam ne jàpp na liggéey bi kon képp koo xam si bokk ci rek na nga xam ne yow bokk nga ci li neex sëñ bi bokk nga ci ñi nga xam si ne li sëñ bi bëgg ñu koy jëf ak ñu koy jëfee yow ci nga bokk te ñu ngi santam képp ku ci bokk tamit waxuñu la nga nekk ci tamit di tekkaar rek li ñu bëgg mooy jëf jëf ji daal mooy li nga xam ne si ku mën a doon rek sëñ baa ngi lay yónnee message boobu nga bàyyi ci xel xam ne sëñ bi moom jëf rek la bëgg képp ku mu àndal nga fay di fay yàlla ma leen yàlla fayal ci kàttu yàlla yonte bi ci dara ji sëriñ Tuubaa xaalisul barke barke si ab Saako ndax addi moom ñëpp ci def si na muy Sénégal Europe fu ma doon France Italie Belgique Hollande Suisse Amérique fépp Afrique Maroc euh, Mali euh, Côte d'Ivoire ba euh, Mauritanie dëkk yëpp rek ba Gambie amul fenn fu des rawatina biir Sénégal gi kon maa ngi santaal bi yëpp bàyyiwuma kenn moom daal yàlla yàlla fay leen li ma leen wax ne saa mooy sëñ bi nag moom mënut a ku mën doon ku mën doon te yàlla booy laag suñu jëmm yi. Euh, la ma la ciy digal mooy na xam ne ñun moom lu man doon jëf daal mooy sun mooy sun mooy sun mooy mooy li nga xam ne moom lañu am amuñu leen jëf rek suñ lépp jëf la ci jëf lañu tàmbalee ci jëf la ñuy jeexale kon ñu ngi ciy soññ suñu bopp waaye ñu ngi soññ ñëpp rek ñëpp gën ko xam ñoon te ñëpp cee góorgóor lu baax a baax maa ngi sant bu baax nag di sant waa télévision yi nga xam ne dañu fi ñëw tamit te at mu jot yàlla ko ñëw fi euh, ànd ak euh, sëñ Xaadim Madina mi nga xam si tamit di bokk ci jàmbaar yi ci njabootu sëñ bi maanaam ñu ngi sant yëpp di leen xamal daal liggéey bi ñoo ko bokk te ni ngeen koy taxaw ak yaatal tamit yàlla suñu borom gën a yaatal seen i mbir te xam naa ne lépp lu mu gën a yaatu rek yéen tam seen mbir a yaatoo ndax liggéey bi moom tàmbalee ndax ne yaa leen addee fii ak tàmbalee ko ñu joxe ay milliards rek na ngeen xam ko di ngi sant ñëpp rek yàlla yàlla defal ñëpp jàmm rawatina yoom Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm ndax jàmm mooy lépp ndax sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bi ñu ko laajee lu lu gën jàmm dina xaw ma ko fii ci àdduna xaw ma ko alaxira gën jëm kon yàlla ñu yàlla defal jàmm fii àdduna alaxira te yàlla bàyyi fii ñëpp yàlla mosal ñëpp waaw kenn ku daal la nga gën a bëgg yàlla na ci suñu borom jàppale nga am ko na ko bëggee ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall Babu Mouride barkeb Cheikh Abdou Sakko jërëjëf euh, Fall Yaram euh, kon ñi ngi soñaat mbokk yi topp euh, ci biir réew mi ak bitim réew képp koo xamante ni aju nga ci Cheikh Moustapha daayira boobu muy wax muy daayira Jazbul Murid ak jëf rek wër nga fexe ci tab bi kon ñu ngi ñaan sëriñ bi yàlla na sunu borom guddal saw fan nga yàgg fi te liggéey te liggéey bii ngi liggéeyal samaam ci biir réew mi ak bitim réew te nu àggale lépp te ku ne xam ne ne subaak jàmm ñi ngi dëgmal ay ay ay ay ay élection mbokki taalibe yi fas yéene jóge fu nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñu fii ci Sénégal muy tànn euh, njiitum réew lépp rek réew mi rek ñooy sàkku nga ñaanal réew mi mu àgg si jàmm jeex si jàmm ci barkeb Sëñ Tuubaa doo doolay maam si liggéey am solo la ndax ak euh, bitim Sénégal day réew moom réewum jàmm la Sénégal day réewum teraanga réew la moo xam ne maanaam boo dul génn sax doo xam Sénégal euh, nit ñi baax gën baax ak ak euh, réew mi yàlla li li suñ borom li suñ borom defal ci réewum Sénégal def ci meneen réew réew yëpp Sénégal moo ci dàq moo ci ëpp jàmm euh, moo ci ëpp ay xéwal waaye nag loolu yëpp bu ñu waxee tamit mu ngi sukkandiku ci ki nga xam ne fa sa pas-pas toll ak na ngay doxee ci réew mi ndax réew mi dafa am lu laaj ndax dafa am loo xam ne ku bëgg tiraangi àdduna Euh, da ngay nangoo liggéey xam nga ndax euh, liggéey euh, bari na réew yoo xam ne fañ àgg tey liggéey moo leen fa yóbbu kon réew mi maanaam élection yi nga xam moo jub si ñaan suñu borom daal yàlla na ci dugg ci bismillah rahmaan dem génn ci ci alhamdulilah rabbil alamin te képp koo xam ne sa wërsëg ji rek ah, yàlla ko yàlla yàlla na ko yàlla jox ah, waaw ak commandoon daal te yàlla na tombeek nag koo xam ne da yërëm nit ñi am am ak jàmm nit ñi rek doon rek yàlla yàlla defal jàmm ñun daal loolu lañu ci ñaan ci réew mi waaw yàlla na doon daal koo xam ne si daal ñu tombee ku gën daal koo xam ne si nii rek euh, bu ko jëlee ah dana góorgóorlu euh, wormaal ñëpp yëg ñëpp jàpp ñëpp rek ndax Sénégal réewum jàmm la du réewum parparloo du réewum xajaloo waaw ñëpp ko bokk kon yàlla na yàlla def jàmm ci ci Sénégal def ko ci àdduna bépp. jërëjëf euh, Fall Yaram ndigal li nga xamante ni tubaa moo ko joxoon samaam maam Cheikh Rahane Fall 1916 ca Njaareem. te ku ne xam na ni ku yokkul yaa wàññi te ku ñëw fii ci Touba euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xamante ni mooy xalifa général des mourides ngoon gu ne euh, kër si am ni Modou Mbenda ba ci kër sëñ Abdou Sakkoor ba ci kër sëriñ Abdoulaye Fall Ndar ba ci kër sëñ Abdou Fall Rokhaya kër sëñ Motaala ba ci kër sëñ Bassirou Awa Jaxate ba ci Kawsara kër sërif maam Cheikh Sërif buntu kër yëpp ak mboolem cheikh yi àndoon ba di nga fa Xaadim Rasul di nga fa dajeeg mboolem buntu kër yëpp rek ndigal lii Sëriñ Touba joxoon euh, maam Cheikh Rahane euh, foofu ca Njaareem ren jii euh, ku ne xam ne ni njabootu Cheikh Fall yëpp rek yokku nañ liggéey bi ci liggéey bu ndogu yi maanaam dañ ciy sant yàlla bu baax ndax ndigal lu jóge Sëriñ tubaa dikk ci maam Cheikh Ibrahima Fall loolu sant rek moo ci war ndax Sëriñ Touba maam Cheikh Ibrahima Fall dañ ne euh, lépp lum mu bëgg rek mën naa nekk nañ yàlla nañ bokk nag ca ca euh, bëggam googee ñu amal yàlla ci bokk yàlla bokk ca ñooñee waaye Sëriñ Bamba moom ak mën naa nekk lépp lu mu bëgg ba jox ci ndigal rek loolu mën naa ne euh, maam Cheikh nag mbiram ku ne xam na ne képp ku bëgg am ci moom dara dangay ngay góorgóorlu jaayante jaayante nag dafa yombul ndax alal dafa sax ci xol Mamadou Maguette dafa ma ko daan wax lu bari bari ndeysaan su ma saan ñëw mu ne ma jox ma ma ne ko ma def nii di ma jox ma rek xam naa ne ci fii la ne ci bi la ne waaye jox ma ko di ko bari le dina ñëw ci kanam xam nga loolu sant ndax xam naa ne yow mi boo xoolee mu ne ma xam naa ko ku tobi nga ndeysaan xam loolu sant yàlla la waaye joxe daal mooy lépp te yoon yi moom day yoon woo xam ne ku ci bëgg a jariñu da nga nangoo joxe waaw kon ñu suñu borom jox xéwal yu bari yoo xam ne dañ ko mën a tàbbal ci yoon yoon la woo xam daal du yoonu wax waaw yoonu jëf la ndax maam Cheikh Fall dafa ñëw nee dama damaa ñëw ci lislaam bi maag Sëñ Bamba ngir génn si naafiq yi lislaam ñu ne ko Fall loolu leen génne mu ne naafiq dana julli dana woor dana dem màkka waaye naafiq du jéblu du joxe alalam ci yoon yàlla te yàlla tax kon nen loolu moo leen indi ci lislaam bi moo moog Sëñ Bamba kon euh, day yoon woo xam ne képp ku bëgg a jaayante jariñu dangay ngay jaayante joxe sa bopp jéblu sëñ bi waaw wala nga sopp ko wala nga di ko liggéeyal koo def rek di nga am di nga di nga mën a sëñ bi yoon wi yoonu jëf la te ku ne xam na ni maam moor Ndiaye eh, di mbokk maam Cheikh Ibra Fall mu ko jege maam Cheikh Ibra Fall nee na ko eh, fii de eh, ñàq moo fi moo fi moo moo fiy jariñe te sa maam nee na jàng baax na loo gis xam ko waaye liggéeyal sañ Bamba loo bëgg am ko daan joxe moo gën julli liggéey moo gën jàng euh, maandoo gën koor kon bu ko defee sëriñ bi sonn na lool dañuy yëkkati euh, yëkkati euh, jotaay bi mbokk yi topp ci biir réew mi ak bitim réew lii na leen indiloon fii ci kër sëriñ Moustapha Fall ibnu sëriñ Abdou Sakkoor addi ji nga xamante ni jébbal jébbal na ko magam ju baax ji Cheikh Mouhamadul Fadali jullit yëpp ñooy bëggee Cheikh Moustapha boo tuddee Cheikh Moustapha rek murit yëpp ñooy yëg ni tudd nga jàmbaar yan kàddu ngay soññaat ci say taalibe ak say soppe ñu yor ko yëkkati jotaay waaw xam naa soññee bi daal euh, li ci gën a fës mooy nañ gën a laxasaayu takku rek ndax ñun ndigal lu ndigal lu daanu rek balaa daanu sax ñun jëlaat nañ yeneen ndigal fii ne xam ne ñu koy waajalaat yoo xam ne ndax ku xam ne euh, tabaski gaa ngi di di di jub si incha allah bu ñu jógee ci ci koor koor gi korte gi tabaski moo ñëw te buñ tabaskee incha allah bi màggal ngay daal di jëw jubalaat kon ñun amuñu wenn waxtu ngi ci ndigal ndigal yu a daanu rek xaar ndigal it daanu ñu soog jëlaat beneen ndigal ci biir ndigal ci la ñu yalwaat yeneen ndigal maa ngi soññ sama bopp di soññ taalib yëpp rek ñu laxasu rek te xam ne maanaam moo fi maye xam ne li ma leen wax saa rek maanaam murid bi nga xam ne dafa nangu ndigal di jëfe di ko di di ko jëfe kooku soo ko xoolee di nga gis moom leer goo xam ne di nga xam ne kii maanaam bokkut ak kii nga xam ne day doy dal ndigal waaw te man mooy lépp man daal képp xam ne sama laamisoo sama mooy ñu ànd ci di jëf rek man daal loolu mooy sama lépp lu man doon lu ne loolu bokk ci sama yitte man daal euh, loolu mooy sama yitte waaw ku yàlla dimbali ma daal ba euh, sama bëgg daal mooy liggéey sëñ bi rek jàng alxuraan euh, jàng xasida di di di liggéey sëñ bi rek di joxe addi ak di dimbali jaamu yàlla yi nga xam ne suñu borom dala dañoo boole ñoom te ku ci nekk rek di dikk fii ngir am am yitte ju la tax a jóg ñooñu maa ngi ñaan suñu borom daal képp koo xam yàlla dajal damaa yow rek yàlla bu yaakaar sa yaakaar tas ci man taal nga xam ne tamit ñu jël seen alal muy góor ñi muy jigéen ñi di ko joxee ci yoon yàlla te yàlla tax ñooñu tam yàlla yàlla fay leen ñooñu daal ñaa leen ngërëm lu ma am ci Sëriñ Tuubaa mam see rafal tey ëllëg yàlla nañ ko bokk ñi nga xam si lu ma nekk ñu sumbali ma ko jàppale ma ci ma am ñoom ñoo tax muy taalibe yi ak soppe yi ak xarit yi am daal maa ñaan suñu borom ñoom yàlla yàlla fay leen ci barkeb Cheikh Abdou Sakor Fall sama xol seet na ñoom bu baax a baax a baax ñooñu daal yàlla mi mën a fay rek moo leen mën a fayal la maam Cheikh Fall waxoon suñu moon yaay tomba del mu fekk ca tool yi muy bay mu damm ab goppam ne yow ndax deret ji daw sa yaram mooy daw sama yaram yi da maa liggéey ba suñu deret jaxasoo kon ko loolu daal man moo tax sama diggante ak taalibe yi kon ñoom daal dañ xam ne yëg naa ci ñoom yëg-yëg boo xam ne bëgg naa bëgg goo xam ne si amul kon maa ngi soññi taalibe yëpp nañ gën góorgóorlu lu baax tegu ci aw yoon fonk seen waajur mag ak seen rak am ñoom jàmm fonk sëñ bi ndax sëñ bi nag mooy lépp ndax taalibe yi boo gisee ñu bëgg sëñ bi bëggewuñ ko leen lu sëñ tubaa Tuubaa daf ñu daf ñu dimbali te sëñ Tuubaa bu ñu waxee sëñ Tuubaa wax nañ maam Cheikh Ibrahima wax nañ jullit yëpp wax nañ njaboot sëñ Tuubaa wax nañ Cheikh sëñ Tuubaa yëpp ndax ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñu ndax sëñ sëñ Tuubaa li ko yàlla defal dafay tawféex boo xam ne ndax Sénégal nee naa leen suuf si ni mu barkeele eh, doom kilifa yi fi nekk nga xam ne si digloo tamit sëñ bi lam lay digal waaye boo ko digloo da am taw tawféex boo xam ne da nga gën da nga leen gën a yërëm da nga leen gën a dimbali te yàlla dalay jox xéwal yoo xam ne di leen gën a dimbali te tam dalay jox xéwal goo xam tamit boo bëggee joxewaat sëñ bi addiye addiye yooyu tam dalay yomb kon loolu bokk na ci eh, li nga xam ci ne lumière bi nga xam ne leer gi nga xam ne tawféex bi nga xam ne murid bu ne war na koy bàyyi xel waaw ah, xam ne loo gën a bëgg sëñ bi rek da nga koy gën a bëggee suñ borom ndax du jaag nag sëñ Tuubaa dañ ne sëñ Tuubaa ku ne xam ne ne du du yàlla yàlla defal ñu tawfeex bu yaatu bu barkeb Seex Muusaa Ka jërëjëf Fall kon dañuy tàllal loxo yi ñu yëkkati jotaay mbokk yi topp ci biir réew mi ak bitim réew lii la leen jëlale woon fii ci Touba pencum Paleen le 23 mars addi ji nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Moustapha moom sëriñ Abdou Sakour sëru Mame Mbène Ndiaye bu dee réew ma ngay joxe waaye bu dee muñ ñëwal jege bu ngeen toogee te kenn laajul mu bel ndelnu fu Touba Linguère ka gën nday ka gën bàyyi gën rakk ak doom bilaay Moustapha dooma sóoru maam Mbène Ndiaye bàyyi am di Fall may doom yi soxna Mbène Ndiaye waaye yàlla na gudd fan eh, terew fi njare njare Ndiaye Cheikh Abdou Sakour moo ne woon Moustapha lay caatloo waaye dina gudd fan dina fi yàgg te dina liggéey liggéey bi muy liggéeyal maam ci biir réew mi ak bitim réew yàlla na àggale lépp eh, ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine allahumma salli wa sallim wa barik jërë ngeen jëf ñu ngi gërëm